jërë ngeen jëf mbokk Sénégal mbokk àdduna mbokk internet yi ñuy si ren suñu site bi di free info point com tey nag ñu àggal leen ci point de presse bi nga xamante ni moo amoon foofu région ba Kaffrine union des mooy pencum ñiy jëriñoo suuf si ñoo woote woon ab point de presse bi nga xamante ni point de presse bi nag ñoo gën ko xam muy Benno Jubal ñoom nag seen président bi di Ousmane Sarr ak yenn si ay acteurs yi nga xamante ñoo nekkoon foofu si région ba Kaffrine ñoom ñoom ni ngi loon si yi daal gisuñ dara sanu bopp ñoom dañuy sunu bopp loolu daal ñu ngi koy wax ki nga xam mooy jiitum réew mi di président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall ngir mu daal di taxawu baykat yi bu baax a baax loolu nag pencum ñiy jëriñ ñiy jëriñoo suuf si ñoom nag ñoo ko daal di xamal ci point de presse boobu kon nag ñi nga xamante ni mooy baykat yi kenn waru leen seetaan lu def nag ñu bàyyi li ngeen seetaan suñu site bii di firi info point com des acteurs de la région de Kaffrine pencum ñiy jëriñoo suuf si muy kuréel boo xam ne lu ëpp ñaari junney baykat ñi ngi ci tay nak dañu dajé fi ci chambre de commerce et d'agriculture bu Kaffrine ngir waxtané tollu wayu fiñu tollu ñun en tant que baykat ak tay bi nga xamné ñu koy waajtaayal nawet bi fiñu tollu na ñëpp xamnañ né baykat mi ngi waaj dem ci toll yi ñu gis nak lo xamante ne ay jafé jafé la yo xamné dundu nañ ko daaw dundu ko daaw wala bañ fi nekk ba légui ñu koy dundu lolu sax bokk na ci li sabab ñu taxawal kurel gi ngir ñu and di ndor di dóorandoo fi ci région de Kaffrine nak dañu japp ne dañ na moy xolu senegal ci walu mbay ñu japp itam ne téeméer bo jël juroom ñaar fukk yi li senegal di dundé ci walu céréal ak walu gerte fi lay joggé mais ñu gis itam ne ñun ñun lañ gëna doya dal ci walu jappalé ndax li tax so xolé li ñëpp di am lañuy am wala bok li ñuy jox ñun doyut ñu ndax engrais bi ni muy ñëwee dañ bopp ñetti kilo bopp ñaari kilo loolu manta bayit ci baykat ñu gis itam ci jiw wi non seulement jiw wi ñuy jox du baax day bënn peese bi du mat dañ lay jox saako cinquante kilos boo demee danga ci fekk fukki kilo suuf yoo xam ne dana dana ko mat la cee doon gerte du mat fanweeri kilo ak juróom boo ko xellee xoolee doo am lu mat juróom-ñetti kilo yi kemb loolu nag at mu jot ñu koy dund ñu ne nag loolu wax dëgg yàlla suñuy kàddu dañu ko jotul président de la république son excellence Macky Sall dañu doon kuréel goo xam ne duñu kuréel guy ŋàññi nguur lim ñuy joxe itam xeebuñu ko waaye dañu bëgg mu dolli ñu li ñuy wax discrimination positive moom la ñu bëgg na beral loxo région de Kaffrine ndax lépp lu soxla ci région de Kaffrine ñun béykat yi defal nañ ko ko kenn wanu ko fi ginnaaw ñëpp ngi ànd ak moom ci ay bëgg-bëggam ci ay yitteem waaye gis nañ ne bu séddale jote wala bu joxe jotee waxuma ne joxe de waaye li muy joxe buy fukk la juróom-ñett day des gannaaw ñaar yi moo fi yegsi te bu yegsee itam bu yegsee itam day mel ni dawlin gu jaar ci kayit dafay tâche balaa ñu cee jot loolu nag wax tigg yàlla doon na loo xam ne béykat yi sonn nañ ci taayi nañ ci ñu koy ñaan nañu bàyyi xel bu baax a baax ci jiw bi gis nañ ne ren engrais saako bi fii ni tey ci Kaffrine juróomi junne la fi jar ñu yoroon engrais daaw ñu ngi koy jaay tonne engrais bi mi ngi jar 400000 ICS loolu mooy saako bi 20000 béykat attanu ko gis nañ ne circulaire bi génn subvention bi gis nañ ne saako bi 10000 lay jar ci saako bi ku mënutoon a jënd saako 7000 ndax da nga mën a jënd saako 10000 doo ko mën a jënd dañu bëgg nag wax dëgg yàlla def na ci loxoom waaye mu gën cee def loxoom. yokk ko mais mu gën ci def loxoom waaye itam mu fexe ñun ñi nga xam ne ñooy union des acteurs ruraux de la région de Kaffrine mu jàppale ñu jox ñu quota boo xamante ne ni ñu koy joxe yeneen i kuréel ñu mën cee jàppandi ko mën koo jox sunuy membre ba ca des mooy bu ñu yàlla dimbalee ba ñu def sunuy pexe ba am sunuy mbiri bopp mu jàppale ñu subventionné ko ba loolu mu gën a yomb ci ñun. matériel agricole bi gis nañ ne néew na moo xam matériel lourd bi la moo xam matériel léger bi la. suñu koy indi naan dañ koy loterie ñun dey fii ci région de Kaffrine bu ñu koy loterie ña koy yor danga gis ko am ñetti yoon am koo xam ne soxla na ko du ko am. ndax fa ñu koy loterie doo fa yegg te bu ñu koy joxee doo ko fekk. ba ca des mooy tracteurs yi borom doole yi lañ koy jox te ñun ñoo ko yitteewoo ñëpp xam nañu suuf si dee na te suuf si yaatuwut te ñi koy bay dañoo bari. kon lan moo mën a baaxal suuf si mooy ñu jox ñu engrais buñ ci mën a def ñëpp xam nañ ne bu njëkk dañ doon def compostage wala ñuy jël euh, engrais organique nefere fas yi waaye fas yi sàcc nañ leen yóbbu nañ leen nag yi dee nañ kon fu ñuy jëlee tos boo waxee ñu ne tos leen fan la ñuy jëlee tos suñu problème principal mooy loolu ñun tos lañ xamoon mais amatuñu tos kon engrais chimique bi foog ñu soxla ko moo tax ñu yëkkati suñu kàddu di wax ñii toog naan dañuy waxal baykat yi ca Dakar wala assemblée nationale waxaluñ kenn waxaluñ région de Kaffrine seen bopp la ñuy waxal est-ce que ñooñu yéen a leen fa yebal dama ne est-ce que yéen yebal ñay waxal baykat yi ca assemblée waaw ñoo yebal seen bopp kenn yebalu leen fa képp ku taxaw ne yaa ngi waxal baykat yi waxaloo baykat yi ndax booy doon baykat da ngay xam tondoxo da ngay xam arbis da ngay xam naaru bët da ngay xam jaalaal dangay xam jiir da ngay xam jànkalaar da ngay tampon ëkk da xam lan mooy siis waaye loolu yëpp gisoo ko tawtawoo demoo tool euh, xolli woo gerte ah. euh, deqi woo gerte naafoo dakase woo beesoo defoo dara ne man baykat laa dama ne dangay nax nit ñi dangay nax njiitu réew mi président ñi ñi ngi ñi ngi ñi ñi ngi wax ñi ngi wax président de la république ne bu ko kenn nax soo bëggee wax ak baykat yi ne ñëw région de de dina gis ay baykat moom def na fi tournée économique ne relance économique bi Covid bi jeexee wala bi wàññeekoo bi mu ñëwee daf ne tournée économique fii la koy defee kon yaakaar la fi am yaakaar jooj nag su bëggul mu tas baykat yii sama ginnaaw na leen jàppale jox leen engrais jox leen jiwu doy jox leen matériel ñu bay bu soobee yàlla mën nañ ko garanti autosuffisance alimentaire dana am fii ci région de Kaffrine euh, ñi ngi wax naan fii ci cycle lañ fay def pôle euh, euh, pôle bi ñu war a def pôle agricole bi ñu war a def agropole bi ñu war a def six kilos mais tey ñun baykat yi suñu ko defé ta amuñ luñ fa transformer amuñ luñ fa jaay lu muy jëriñ tay mbolo mi ay transformatrice ño xamné dañuy soppi mbeñantal ñi ngi fi mais kenn amu ci matériel de transformation mm-hmm. jigen ñaangi ni bëgg bay amuñu ndox amuñu tol tay bo démé dëkk yi mo am de lay del bi nga dem nguy nga dem kër dem ba aysa nga dem njóobeen tay ba nga dem tay fi ci janké ndox ma nga fa euh, ñi nga bëgg ndox mais am ndox nga dem ngalik nga dem nawel nga dem busselel fo dem bu lay daa mm-hmm. jigéen ñaa taxaw goor ñaangi taxaw bëgg liggéey ndaw ñi mais mënuñoo liggéey ndax amuñu ndox bu amuñu euh, benn toppatoo boo xamante tey kuréel yi bu ñu ñëwee pour ñu mën leen jàppale financement yi ñuy wax ne day ñëw ci baykat yi mais baykat yi gisuñu leen ña koy jël ña koy jël parce que critères yi ñuy teg critères ya koy teg d' abord ñu am information bi te information balaa ko jot dañ ko jot tardivement te suñu demee ba postuler ñun du ñu am loolu nag dama yaakaar ne comme ci réew mi lañ bokk président de la république ñi ngi lay ñaan euh, man Ousmane Sarr en tant que président union des acteurs ruraux de la région de Kaffrine pencum baykat yi kuréel bi nga xam ne tey moom lañ reconnaître fii xam ne béykat yëpp ànd nañ ci booloo ci waxuma ne ñii lay nax de di ñëw xam ne ñoo amee oto ñoo mën a paas ñëw Dakar ñu nag amuñu paasu Dakar amuñu oto ay béykat lañ ci tool yi lañ nekk xamuñ lu dul taxan dem ca jàkka ja dem ca tool ya loolu mooy sunu yite xeexuñ xulawuñ grèvewuñ sànn takkuñ ay pancarte takkuñ morceau bu rouge bu xonq waaye li ñu bëgg mooy nga bàyyi ñu xel ne xam ne fii ci région de Kaffrine li ñu bëgg mooy ku daaw ñëpp xam nañ ne boo demee fii daar Darou am 2 nga ñëw commune Dianké barki démb laa fa jóge dafa émission yoonu tool maa émission yoonu tool def naa ko fa maa ngi fa fekk soccante yi euh, tey boo demee da nga fekk ñoom seen jëmi bopp dañoo teg ay kii di ci mbaal sax soccante yi. Hmm. DPV lu toll ni région de Kaffrine ñu ne benn brigade moo fi am tey waroon na chaque département am benn brigade waaye benn brigade moo fa am nga nganda hmm. seeni oto baaxul ren bi ñu leen wooyee ne leen dem leen. biñ leen wooyee ne leen dem leen euh, euh, fële euh, ci soccantal yi li ñuy njëkk a dégg mooy dañuy wax ne amuñu gasoil loolu dafa grave amuñu gasoil dafa grave ñu ne benn oto la ñu yor benn oto bi dafa dem ba commune Dianké mu paan te je parle sous le contrôle des baykat ñu ngi ni sama gannaaw li may wax kenn du ko weddi léegi nag ñaari oto naka lañ mën a nekk ci région bi ne dañuy aar nit ñi ci seen wàllu meññantal dama wax ne président gis nga ren jii bu fekkente jóguñ léegi traité soccant yi déwén kenn du am nawet ñi bay xaal xaal yi ñoo dagg seen i lawtan bam jeex takk ba mu jeex takk fii ku fi bay xaal xam ne ne zone xaal la ren kenn amul xaal soccant yi ñoo ko dagg dagg gàjjan yi ba mu yàqu loolu nag ñi ngi sàkku ñu dimbali ñu ci li nga xamante ne moom mooy phytosanitaire bi ba nga xamante lépp loo xam ne mooy wàllu gàncax wax dëgg yàlla dana mën a ñoŋ fii ci région de Kaffrine. yi li ñu gën a sonal. mooy suñu bayee fuñ koy jaayee ren campagne bi dañ cee sonn loolu fa lekk ma wax ko état bi dafa wax ne garanti na prix bi deux cent cinquante mais jaay nañ ba fanweeri juróom-ñeent fukk loolu mooy dëgg gi. loolu mooy dëgg gi chinois yi ñoo ñu doon dimbaleel ñu leen di jaay ay kilo quatre cent. kilo 350 ñëwuñu ba fi may waxee yow ni am ñoo xam ne gerte des na seen loxo te gerte ga des seen loxo mënuñ koo protéger parce que bënn na mënatul jiw ñuy wax naan semence baa ngi ñëw semence balaa mën a am jiw qualité mooy am. jiw wi ñu am dee na baaxatul soo ko bayee itam buy def boo ko deqee buy def une semaine ngar yi commencé koo bënn parce que amatul qualité boo xam ne mën naa protéger xott wi wala mu mën a protéger kemb gi loolu ay jafe-jafe la bu ñu bayee pour ñu écouler suñu marché suñu suñu production indi ko fii ci taax yi wala ñu yóbbu ko ci point de collecte yi yoonu wa jaar sax doo am fii de euh, euh, danañ ko wax nag parce que ñun ñoo koy dund ñun ñoo koy dund yoon wu baax amul fii ci région de Kaffrine pour nit ñi mën a jël seeni i mbayteef di ko génne di ko yóbbu vers le vers les villes amuñu loolu te loolu wax dëgg yàlla war nañ ko ci ba des pistes de production loolu soxla nañu ko bu baax a baax a baax a baax. sàmm yi ak baykat yi ñëpp ñu ngi ci kuréel gi xam nga kuréel gi dafa ëmb union des acteurs ruraux mooy képp koy jëriñoo suuf si sàmm yaa ngi ci sàmm mooy baykat baykat mooy sàmmkat parce que li ngay bay moom ngay dundale sa jur jur gi mooy bay tool yi mm-hmm. kon amul kenn koo xamante ne dangay bay doo sàmm traitement égal na ba parce que tey lu euh, ci jur gi rapidement nga dégg ñu ne dañ leen di jàppale mm-hmm. mais ñun suñ mbay bu yàqoo kenn ñu jàppale mm-hmm. ren bi nga xamante jur gi faatu nañ wala daaw bi jur gi ñan ñu ne am nañ problème sedd bi rey ndox mi rey na le mais dañoo dem jàppale leen mais ñun béykat yi suñ nawet bu yàqu kenn du ñu jàppale kenn du ñu jàppale ren actuellement fi may waxe yow ni kilo mboq mi ngi jar trois cent cinquante kilo basi mi ngi jar trois cent cinquante suuna trois cent vingt cinq te mi ngi fi doon jar cent franc soixante quinze cent cinquante maximum te mënatuñ ko am. loolu mooy lan mooy amuñu dañ koy jëndiwaat feneen parce que liñ bayoon baaxul. ñu ne nawet baax na ñu ne nawet baax na mais ñi wax ne nawet baax na les services techniques dama koy wax les services techniques bu ñu ñëw nañ ñëw laaj borom tool yi ñu waxal leen. mais buñ toog fii ñu leen di indil ay rapport fictif di leen wax ne lii baax na lii baax na ñoo béykat yi baax na banques yi topp ñu di ñu fayeku état bi naan lii baax na te fekk dara baaxul. béykat yi xam nañ ñun ñoo xam suñu matti lal ñoo xam bu ñuy laaj nañ ñu laaj ñu wax leen li nga xam xam ne mooy sunu fitna te ñun gorade wuñ ndax lépp lu ñu dal duñu wax ne dal nañu waaye lu ñu dal buñ ko waxee rek dëgg la li ñuy ñaan daal président de la république mooy ñun soxlawuñu interlocuteur ñun moom la ñuy waxal moom na xam ne baykat yi région de Kaffrine union des acteurs de la région de Kaffrine ñu ngi fi nekk boot baykat yi te incha allahu taala lépp loo xamante ne ay bëgg-bëggam la ñun de mosu ñoo wan ginnaaw président de la république. waaw mosuñu ko won gannaaw ndax baykat moom talu loolu ñun li ñuy newatal politique ñun li tal mooy bay ak luñ ñu dundalee suñu njaboot waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant. Man Sar je suis le président de l'union des acteurs de la région de Kaffrine pencum baykat yi diwaanu Kaffrine. Nous sommes réunis aujourd'hui ici euh, pour euh, fustiger avec la plus grande énergie euh, du traitement auquel nous sommes confrontés. Nous, en tant que paysans de la région de caféine nous nous sommes organisés à une organisation reconnue par l'État et légale. nous sommes plus de 2000 membres. ces 2000 membres se sont réunis uniquement pour lutter contre leur cause, mais pacifiquement. Nous ne sommes pas contre l'État et on ne le sera jamais. Mais nous sommes en phase directe avec l'État. Mais ce que nous disons, c'est que nous avons des problèmes euh, qui sont vraiment euh, visibles et palpables. Sur le côté de l'engrais, nous avons vu le circulaire a été euh, mis en service. Nous avons vu actuellement que le sac d'engrais a été subventionné à 10 000 francs. Le 6-20-10, c'est l'engrais de la l'arachide un paysan qui ne pouvait pas acheter le sac d'engrais à 7 000 francs, si vous le vendez le sac d'engrais à 10 000 francs, ça, vraiment, vous, savez nettement qu'il ne prendra pas son engrais. Deuxièmement, les semences que, nous, que l'État nous donne, non seulement avec les opérateurs, euh, ils nous arnaquent, parce que les semences là, euh, à chaque sac de 50 kilos qu'on vous donne, tu trouves 11 kg de sable et presque 38 kg d'arachide. Et ces arachides-là ne sont pas de bonne qualité. Une fois décortiqué, tu ne te retrouveras pas avec 8 kg d'arachides décortiquées, de graines. Donc ça pose problème. Autre chose, euh, nous avons vu que chaque fois, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'État, des personnes se lèvent pour dire qu'ils sont là pour les paysans. En tout cas, l'Union des acteurs de la région de Kafrine euh, n'a pas mandaté aucun, aucun, aucun ou aucune personnalité pour qu'elle parle au nom de la région de Kafrine. Le président de la République a été là lors de la restriction du Covid-19 pour sa tournée économique. Il a visé la région de Kafrine comme la région motrice pour booster l'économie du Sénégal. En ce moment-là, si vous voyez 70% de la production céréalière et arachidienne du Sénégal provient de la région de café. Et pourquoi, avec tout ça, les paysans de la région de café sont les plus pauvres C'est une question à poser. C'est-à-dire, ce que le président nous donne comme intrant matériel, vraiment, nous ne le recevons pas. Ou bien ce ne sont pas de bonne qualité. Il est temps de signaler ça, le président, euh, pour qu'il sache que nous avons le plus grand respect euh, envers lui, mais pour, pour qu'il reconnaisse aussi l'association des acteurs de la région de Kafrine, que nous, nous sommes des paysans déterminés qui ne savent que travailler la terre. Nous ne portons pas des brassards rouges, nous ne cassons rien, euh, nous ne brûlons rien, mais ce que nous voulons, mais nous sommes des Sénégalais, qu'ils pensent aux Cafrinois, qu'ils pensent aux paysans Cafrinois. Le matériel agricole, euh, c'est de la loterie. C'est de la loterie. Beaucoup parmi nous n'ont pas de matériel. Beaucoup parmi nous n'ont pas de matériel. Le matériel lourd, les soi-disant tracteurs, nous les entendons par oreille, mais nous, n'avons jamais vu de matériel euh, lourd. Les tracteurs, ce sont les bourgeois ou bien les patrons, les, policiers euh, euh, qu'on les donne. Et, y a, là, chaque année, chaque année, il y, a des, y a des cultivateurs de melons ici chaque année, ils dépensent plus de 10 millions pour, le labo, pour labourer leur, surface euh, emblavable, Donc ça, ça pose problème. Autre chose, il y a les criquets qui sont là. Depuis l'année dernière, les criquets sont là. Euh, en tout cas, l'année dernière, si vous voyez qu'actuellement le kilo de mil est à 350, le kilo de maïs est à 400 presque, le, le sorgho est à 350, l'arachide et intouchable. Si vous voyez ça, ça veut dire que l'année passée, la récolte n'était pas bonne. S'ils nous disent qu'avec les responsables techniques, euh, euh, l'hivernage a été euh, fructueuse, mais je pense que ça, ce ne sont que des <laughs> blabla. Ce que nous disons... Sur, la DPV... pour toute une région, la DPV n'a que deux voitures ils n'ont même pas de, ils n'ont même de, poudre pour vraiment euh, attaquer ces, ces, criquets-là. Moi, je suis allé l'autre jour euh, à, à dans la commune de Djanké, j'ai trouvé les criquets là-bas. Et si des solutions ne sont pas vraiment prises, ce qui, ce, euh, déjà, ce que, je, ce que je vous dis, que on, aura d'autres problèmes plus sérieux que l'année dernière.